wax daw coow daw lépp ñu ñëw rek ñuqati la ñu ñëw rek ñuqati la fi nga nekk pourquoi soxna si encore une fois on t'a fait quoi la def lu dul ba ngay wax ba tey ñu ñëpp ñu ne rëmm toog mat ba mel ni kilo déggoo ci kenn yow rek yaay wax ak say ñoñ c'est quoi le problème Maodo sax tiituma ko ndax mënoo ci moom dara dara dara mënoo ko ci moom léegi yow laa toujours la victime ah wala bës bi ci amee doyul ah danga bëgg plus de buzz malheureusement jox naa la ko mu doon jéng duñu dugal ci xalu safara sax duñ la baax li ñuy wax rek man li ma mënul comprendre man mooy nit ku mën a fanaanoo rancune rancune ci sa biir xol man loolu je peux pas le comprendre nit bu mën a fanaanoo rancune man pour man quand j'ai des problèmes avec quelqu'un ça je teudé nelaw je fàtte naa damay sax rëccu bu bat Je na pas ci ne sax dama koy non elle est méchante ma chérie tu es méchante. tu es méchante je suis désolée. Ami, arrête-elle.